على المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم وما سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلأ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار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 رحمهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صيحة واحدة تنفذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم به توقنون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون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 لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية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 يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم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 وسبح الملائكة يا مريم إن وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي معه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم إذ يختصمون إذ قال مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 yaa rabbal alamin jazallahu anna kullu amin jazallahu anna kullu ñi sikkar ñi sikkar ñi sikkar hawla eh, bismillah allahu la ilaha illa allah الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله illallah Bour Sine Bour Sine Coumba Ndoffène nga xamante ne nii eh, li ëpp li nu am ci ci biographie Saydatuna Mariama Niass mi noppalu tey di njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim biographie boobu ki ko def moom laa nekkal ni en direct nu jox ko kàddu gi mu dikkaat ci soxna si ndax moom daanaka ñun presse bi moo nekkoon sunu correspondant ci njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim rawatina ci njabootu Saydatuna Mariama Niass kon eh, Bour Sine Coumba ñu bàyyi la mbokk internet gu tiis gi. Ah, euh, maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne euh, ñu ngi ñuy suivre ci Sunugal 24. ci Sénégal maa ngi jégalu ki <laughs> Sénégal waaw ah, émission bi la rek émission bi la comme ni nga ko xamee euh, waaw comme ni nga ko waxee rek. boo xool sax man article boobu dama koo def yàlla yàlla daf ma may chance ma def ko avant muy génn àdduna yàlla may na ma chance ma rendre ko hommage avant muy génn àdduna euh, remarque boobu benn nit sax moo ko def dama yow heureusement euh, rendre ko hommage balaa muy génn àdduna man nag euh, en plus ma nekk journaliste sama kursi Sira Mariam daf ci participer lu am am solo Sira Mariam moo ma yar sama doom bu jigéen bi ma amagum sama taw moom laa ko tuddee école am laa jàngee Daaru Xuraan euh, tey kon nu ma mel rek Seyda Marem daf ci participer lu bëree bëri bëri participer lu bëri bëri Seyda Marem gis sama cursus bi ma yëgee nouvelle décès bi ni ma ko yëgee euh, damaa liggéey ba jël pause Euh, bi ma jëlee pause ñëw pour reprendre ma gis sama portable gars di statut ñu statut image am xam nga ni ñu statut noonu ci kii bii di jooy noonu émotion bi ak yu mel noonu. kéemaan la. waaw. affaire bi di kéema kaw quoi. gisee moom sunu confrère la Bour Sine Coumba Ndoffène jàmm jéem fu biographie gi circulé ci internet bi ci soxna si moom moo ko amal euh, nga wax ni 1932 defe naa ca la gane àddina la gane àddina yan ñooy euh, étape yi nga xamante ni ñoom ñoom marqué daanaka dundam waaw bu ñuy xool tey ci lu gën a marqué dundam euh, mën naa la ne moom dafa teel a mokkal alquran dafa teel a mokkal alquran ci lim nekkee xale teel na mokkal alquran ba commencé di ko jàngale xale bu ndaw commencé na di jàngale alquran ca Medina Baye mais par la suite mbayam tam Cheikh Islam daf ko teel a maye daf ko teel a maye bi mu amee jëkkër bi mu amee borom kër si la jógee na Baye si la jógee Kaolack euh, ñëw Dakar c'est en 1952 ma la ko Alquranu Karim nag euh, mu ngi ko tàmbalee jàngale si biir néegam si biir néegam Malick Sy Malick Sy ani Malick Sy fa la commencé di jàngale Alquran te boobu nag loolu it pour jàngale pour am xaalis da ko doon jàngale pour répondre pour répondre hadisu yonent bi ki gën ci yéen te di koy jàngale muy def loolu di def loolu mbir mi di yaatu ba lépp fekk ko ci ba mu def ci école tey am na ñoo xam ne daf leen jàngal ñooñu ay imam lañ si àdduna leer na ci rek doomam professeur Ousmane Kane nga xam ne Harvard Université Harvard Université chaire islamique moom moo ko yore foofu loolu ñu bëri xamuñu ko am na itam am na lu am importance oh macha allah Bour Sine Coumba Ndoffène nga xamante ni dafa doon dikkaat ci biographie soxna ci tënk rek ñu ngi jéggalu ndax temps bi moo xaw xat kon ñu jubluwaat ci bés bi rek ci taxawaayu leve du corps bi ak li fi am. njabootu njabootu Seydatuna Mariama Ñas ñooy jàng fi mu ne ni ñu ànd teewlu leen